doon ko taxawal mouvement réveillon la ñu ko duppee muy kuréel goo xam ne kon nanu yeewu noo ne la ñu ko duppee mu doon kuréel gu ñu ne dañoo bëgg jàppale njiitu réew président Macky Sall waaye nag itam lépp loo xam ne kon jëm na ci wàllu ko fi bëgg a jeexal waaye itam di jàppale ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di seen ay ñooñ ndaje ko amal ci kër gi ci euh, Touba daax ma naan lan li nga xam ne kon yëkkati na ko ci ay kàddu leeral rek lu jëm ci wàllu kuréel googu la ko tax a jóg ñenn ci euh, ñi jiite kuréel googu di mouvement réveillon ñu teewlu leen àndoon ak euh, sëñ Saliou Ndiaye di suñu xarit di suñu wóllëre euh, nekkoon États-Unis donc mu am ay yéene ju am solo yoo xam ne bëgg na ko jàppale réew mi ak euh, population bi rawatina Touba gi nga xam te fi la jógee ci wàllu social donc loolu moo taxoon ñu ñëw ànd kook moom fas yéene naa jàppalante ak moom Euh, ngir jubluwaayam mooy fexe ba euh, état bi walla njiitu réew mi yéene ji nga xam ne moom la am ci liggéeyal euh, Sénégal ak ndimbal yi nga xam ne soxla na mu egg dëgg-dëgg ci population bi nga xamante ne bii moom mooy seen mooy seen mooy seen yitte mu fexe ba loola ci boppam daal fay egg kon loolu moo nekk moo nekk suñu yitte ñu nag loolu lañ loolu mooy ñu tax a ñëw ñu ñëw jàppale ko ci. Euh, ci orientation yi ak ci suñu xam-xam ak ci suñu connaissance ngir ne li mu li bëgg mu eggale ko mu eggale ko comme ni nga xam ne ko suñu borom jàppalale. waaw Réveillon mouvement politique la boo xam ne dafa judd ci contexte bu particulier dañ fii à Touba yi ou bien les leaders politiques dañ ñu def seen bétail politique Touba nag léegi dafa yeewu ñor-ñor goo xam ne nekkatu fi pour di. dugg ci idéologie yoo xam ne fitna lay jur wala jural ñul njariñ Touba dafa ñëw jël lim moom ci wàllum politique. loolu moo tax mouvement bi juddu mouvement bi dafa ñëw ngir conscientiser population bi parce que dañ leen jàppee population boo xam ne maanaam dañoo nekk ñoo xam ne dañoo xaw a xeebu wala dañuy dellu ginnaaw malgré dëkk bi ak lam li mu lamboo di ay particularités yoo xam ne ñu ci bari seenug taalibe ak dëkk bi ni mu bindoo. moo tax lu ci bari du ci mën a fës terewut nag ñu ay leader politique di fi nekk loolu nag dafa am combat bi loo xam ni ñu bari dañ fi def politique waaye dañ ko raté mooy créer benn profil boo xam ni waa Touba dinañ mën a aspirer à ce que bu ëllëgee ñu nekk ay leader politique yoo xam ni dinañ leen mën a gis sur la scène politique ñu mën a occuper ay postes yu ci mel ni ay ministre ay DG bu ñu gisee fii à Touba boo doon compter deux ministres mënu fi am. deux DG mënu fi am mais loolu nag woy politique yi nit ñu jàppee la et je pense que ni aussi Touba attitude bi muy am di suivre yenn logique yi dañ ci war a jógee parce que je prends l'exemple du président de la République on n'a rien contre la personnalité des opposants wala ou bien du ñu fi nekk di maral ginnaaw ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi waaye ñun dañu jublu pour indi politique boo xam ne suñu njariñ ak suñu njariñ localité moo ko tax a jóg te loolu nag dañu gis ni kii di njiitu réew mi mi ngi ci bay waaram te gisuñu loo xam ne war nañ ko mën a tourner le dos. waaw taxawaay bi nga xam ne moom la réveillon fas yéene indi mooy ñun dañuy indi ay plateforme yoo xam ni maanaam dañuy jéem a lëkkale li nga xam ne mooy réalité dëkk bi ak politique boo xam ni politique bu am teggin la. parce que politique aussi il faut que ñu leeral waa dëkk bi lan mooy politique politique weesuwul li nga xam ne moo ñu yitteel ci askan wi. maanaam ñu fexe ba ñoŋal loolu rek mooy politique. du xeex du xuloo. réew mi bu ñu ko taalee maanaam kenn du jariñu léegi nag koo xam ne da ngaa bëgg a taal réew mi bëgg a taal pour jot ci kooku dam je pense que nit ñi war nañ def attention ci yow. parce que ndaw Touba bis bu jugee ñu koy gis ci yoon combat yi ñun rafetul ci suñu der Touba ak li mu làmboo ñun ci yar lañ ñu xam ci teggin waaye nag. dafa am ñoo xam ne dañoo raaxaloo ci dëkk bi mais bokkuñu fi mais Touba moom yeewu na te kenn mënu koo xeexloo kenn mënu koo yóbbu ci muy taal dëkk bi ci ko xam Touba. salaamaaleykum sama tur Serigne Saliou Ndiaye la jógee à États-Unis ñëw amoon lu bari loo xam ne yaakaar naa mën naa ko jariñ sama réew rawatina waa Touba gox bi nga xam ne fi laa juddoo fi laa yoroo fi laa soqeekoo en rawatina ci politique boo xam ne président de la république mi ngi koy defal dëkk bi rawatina li président defal waa Touba ñun ñi fi nekkul ñoo koy gën a gis ci ñi fi nekk te président gis nañ président euh, président Macky Sall lim defal waa Touba defal ko benn région ak benn département benn commune boo xam ne lim def Touba def ko fenn bari loo xam ne daf koo réaliser ci dëkk bi mais ñun ñu fi dëkkul ñëwa gëj gëj ci dëkk bi ay ay ay at in bi ñëwee gis nañ lim def ci dëkk bi. ndax da ngay xool lu mel ni bourse familiale da gis lu mel ni. FONSIP euh, DER ay financement yoo xam ne benn leadership amuñu benn leader boo xam ne mën na leen a jàppale pour ñu jot ci te ay milliards la ci état bi di def loolu lañ leen bëgg a jàppale conscientiser leen ba nga xam ne ñoom ñëpp wan leen yoon wu ñu jaar pour jot ndax boo jigéen bi dëkk fongali mi bu mënee jot ci bourse familiale jigéen bi dëkk Touba war na cee mën a jot te luñ loolu mën a jot moo ñu tax a jóg dañuy def li ñuy wax politique autrement ça veut dire que jàppale ndaw Touba yi jàppale jigéen ñi Touba yi ba nga xam ne lépp lu beneen jigéen di jot ñoom ñu marcee jot parce que bari nañ luñ ci commencé te bari nañ ndaw yoo xam ne tamit bëgg nañ leen jàppale ñu génn réew mi ñi nga xam ne chaque 3 mois dinañ leen jéem a jàppale donte 15 personnes sax wala 10 personnes la jàppale leen ñu génn réew mi li ci des nag li nga xam ne président de la république réalisé na ko ci dëkk bi tabax fi ay hôpital def fi ay tabax fi ay forage ku ne xam na ni Touba màggalu Touba ndox daraan manqué saa su nekk 24 heures sur 24 daaw ñu am ndox léegi Touba mënoo fee ñëw màggal ba mu nekk ba mu am ba mu manqué ndox foo tromb fo président Macky Sall def na def na fay forage tëli 30 yëpp la tëli président Macky saal defal na fi bépp tëli 30 boo fa gis président Macky Sall defal na ko président Macky Sall nag bari na lu muy def ci Touba mais ay leader Touba tey ji mel na noo xam ne amul benn group wala benn association boo xam ne boo amoon ndimbal boo joxe Touba fa nga koy jaarale. te loolu Touba amu ko lu toll ni dëkk bu dëkk bu toll ni deuxième capitale de Sénégal Touba ginnaaw Dakar Pikine moo ëpp population ci Sénégal amul benn association wala benn mouvement wala benn group boo xam ne ñun ñu nekk bitim réew buñ bëggoon a jël ay dons sax pour jàppale ko waa Touba amuñ feneen fuñ ko mën a jaare ñun loolu lañ pare pour conscientiser leen pare pour jàppale leen ci côté boobu bépp nag ndax ñun mouvement Réveillon ñu ngi ko tasaare fépp ci àdduna bi am na ba New York am Canada am na Fouta Kalda Kolda am na France am na Italie ça veut dire que mouvement romain euh, mouvement romain du du mouvement bu ndaw. comme na ci Touba. Mhm. ndax day lawal bànqaasam ci wala dana dem ba ci département de Diourbel bi yëpp dem Kaolack dem na dem fépp ci Sénégal incha allah rabbi loolu loolu moo ñu tax a ah, ndax ku toll ni Marème Faye Sall euh, premier dame day jël ay milliards di ko def. ci li nga xam ne day jëm fii day jëm ci Sénégal yëpp mais jigéen ñi Touba kenn mënu leen a mus naa jot ci ay dons yoo xam ne première dame dañoo soxla ku loon orienté defal leen ay formation yi nga xam ne lépp luñ bëgg a jot ci loolu dinañ leen jàppale ñun mouvement Réveillon pour ñu mën cee jot ci loolu ndax ku ci mel ni première dame day jël ay milliards di ko jëf ci dëkk bi am na loo ci xam ne man mën naa ko témoigner ndax ci sama loxo lay jaar bu yàggul dara même pas 4 jours jël na presque 900 millions yoo xam ne presque matériel médical la xam ne mi ngi koy jàppale Sénégal moom sax choisir fan lay dem na dugg Sénégal ça veut dire que loolu nag ñun comme ñun am nañ benn politicien nekku suñu ginnaaw amul kenn koo nga xam ne ñun euh, euh, moo nekk suñu dernier ñu ni neen la ñun Sëriñ Touba ñun ñoo créé le mouvement républicain pour jàppale président président de la république ak soxnaam ci première dame pour jàppale loolu ba donation yooyu muy joxe don yooyu yëpp pour muy agsi ci population Sénégal bu Touba.